aywa dañuy egg si léegi ci jàngat bi ñu ànd ci ak euh, El Hadj Daouda Mine de maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla soxna naa te <laughs> <laughs> namoon nañ la. maa la raw maa leen raw di <laughs> man <laughs> fan laa demoon bañ may refoulé. may refoulé maa woon fii sama kër tëdd. kokumbo à di di sama yax sama yax yi nga xam ne noral ngeen ko waa matinal bi surtout yow surtout yow Chérif Dia. kokumbo à naata à mu dem ci Champs-Élysées dina ni di côte côte yi. daaw du miin mu nuyoo bàyyi daaw du miin mu nuyoo. <laughs> Chérif bàyyi ma ba ngay dem Tebrazene mënoon nga ma yóbbu. Ah, merci beaucoup voilà. <laughs> Ah. ah bon ñun xamuñu fu mu demoon de. Ah. foofu la demoon de Tebrazene hmm. nuyu waa Mauritanie yëpp. président sama carte presse bi jox leen ma ko mi ngi bëgg a yàgg de. déposé gu yàgg na ba mu déposé. donc maa ngi nuyu téléspectateur yëpp. Hmm. di nuyu sama naataangoo yi ma fekk ci plateau bi. Hmm. Hmm. Euh, di am yaakaar ne di am euh, yaakaar que ni lépp lu nga xamante nañ ko fi wax dina jëriñ askan incha allah merci beaucoup El Hadj Daouda alors euh, diggante aldina bee passé ba nga fi ñëwee ak tey jii am na lu xew ci diggante bi muy dossier Ousmane Sonko Adji Sarr bi ci diggante bi sax am na loo ci wax mais bon c'était ailleurs. léegi tey jii la nga bëgg a taxaw ci étape procédure procès boobu noonu nga xam ne ñu ngi koy mandat jamono waaw parce que fi ñu mujjee woon a toll ci procédure bi moom mooy euh, le doyen des juges Omar am Diallo pare na liggéeyam jàpp ni am na ay charges suffisantes yu nga xamante ne war na renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement muy chambre criminelle daal di def ordonnance de renvoi donc ordonnance de renvoi boobu nag moom mooy wane ni kii nga xamante moom mooy Ousmane Sonko ak Ndeye Khady njaay bi nga xam ne dañ leen inculpé woon dans l'affaire Sweet Beauté dañu war a taxaw devant la chambre criminelle foofu la ñu la la ñu toll fi mu toll ne ah, maintenant euh, chambre criminelle dafa am procédure bu nga xamante ne loolu moom moo moo fa am nan la procédé di di di amee loolu yaa des dispositions du du code de procédure pénale bu nga xamante ne moom moo ko moom moo ko tëral Euh, disposition yu nga xamante ne ñu ngi leen réformer en 2014 avec la loi vingt 28 bi nga xamante ne daf lay wax lan mooy composition bi nu muy demee ak procédure la war a déroulé woo déjà composition bi ñetti membre la xoolee cour d'assises à l'époque ay jamono sept membre la woon c'était quatre jurés mu nekkoon ay citoyens ordinaires ak ñetti magistrats professionnels ay jamono mais mu demoon en 2008 ñu réformé woon ko lépp li nga xamante ne juré la woon ñu génne woon ko mu desoon trois magistrats professionnels. Mm-hmm. loolu noonu cour d'assises la woon mais bi ñu changé euh, changé cour d'assises def ko chambre criminelle également mm. ñetti magistrats professionnels yooyu moom moo continué donc ce sont des magistrats professionnel ñu nga xamante ne ñu ngi liggéey ci tribunal régional bi nga xamante ne foofu la chambre criminelle bi lañ euh, di war a amee mm-hmm. ñoom ñoo war a siéger donc loi boobu daf ne tribunal régional yëpp donc chambre na laa koy wax sax tribunal de grande instance li nga mm-hmm. xamante ne moom moo nekkoon tribunal régional fépp fu nga xamante ne dafa am dafay amaale en même temps chambre criminelle bu nga xamante ne moom moo war a juger lépp lu nga xamante ne dañ ko qualifier crime donc dakaar dafa am chambre criminelle mais boo xoolee ñun fii dans la pratique ñaari chambre criminelle la ñu la ñu am fii ci ci euh, na laa koy wax sax ci tribunal de grande instance bu Dakar dañu am première chambre bi am deuxième chambre bi chambre bu ci nekk ñetti membre la day am benn président ak ñaar ñu nga xamante ne ñoom ñooy assesseur ñu nga xamante ne ñoom ñooy euh, koy assister ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi bu ñu ñëwee nag ci jour ba avant même que nit ki di taxaw am na lenn lu nga xamante ne loi bi da ko prévoir mooy benn lu nga xamante dañ koy ubbi pour identifier ki nga xamante moom lañu ñu war a juger mm-hmm. la plupart day nekk ñetti fan avant jugement bi day donc dañuy woon nit ki nit ki ñëw ñu interroger ko pour mën a xam ndax effectivement ki ñu war a juger moom moo teew. ñu identifier ko ñu identifier ko maanaam ñu ne nan nga tudd mu ne Ousmane Sonko xam nga xool exactement li nga xamante ne moom moo nekk ordonnance de renvoi pour identifier ko ba mu leer na ni kii moom mooy ki nga xamante moom la ñu war a juger ñu doog nag daal di programme ñetti fan après le procès proprement dit et jour procès bi nag bu boobaa moom mu ñëw su ñëwee teew. li nga xamante ne moom mooy greffier bi daal di lire la totalité de l'ordonnance de renvoi li nga xamante ne moom la juge bi retenir contre moom mhm. juge d'instruction bi li nga xamante ne moom la retenir contre moom ñu liir entièrement l'ordonnance de renvoi ne ko nag lii lañ lay reprocher après commencé nag li ñuy woowe interrogatoire bi léegi nag foofu nag ces avocats am nañ possibilité avant même que ñuy dugg ci fond bi ñu soulever ay exceptions de nullité de la procédure maanaam gis nañ ni lii lu sooxee la. li nga xam ne mën naa neenal procédure bi. lépp lu mën a neenal procédure bi. Mm. donc lépp li nga xamante ne ñu ngi koy ŋàññi tey. Mm. Omar Maham Diallo deful lii Omar xam Diallo deful lale gis nañ ni lii kat nekk na lu nga xamante ne daf koy innocenté lii kat dafa nekk lu nga xamante ne war nañ cee sukkandiku pour bañ koy sax juger dans le fond avocat mi dina mën nañ ko soulever buñ ko soulever nag après. ki nga xamante ne moom mooy le président de la chambre criminelle avec ses assesseurs mën nañ àddu ci loolu bu ñu jàppee ne arguments yooyu c'est des arguments yu nga xamante ne recevable nag mën nañ ko retenir annuler la procédure ba ñu dugg sax dans le fond mm-hmm. mën nañ en même temps également bu ñu waxee loolu exception yi ba pare ñu jël ko joindre ko dans le fond après daal di ñëw ubbi débat yi débat bu jeexee ba pare ñu statuer sur les exceptions après statuer sur le fond su fekkee dañ jàpp ni exception yi comme ni ma ko waxee c'est des exceptions qui sont recevables et li ñu wax noonu c'est dafa war a annuler procédure bi ñu annuler la procédure bu boobaa du ñu dugg sax dans que identification bi dina yomb ak fi nga xam xam ne également des koy faral di gis ci ñenn ñi trois jours avant jugement est-ce que ça sera possible ci dossier Ousmane Sonko ak Sall. ah euh, est-ce que ça sera possible ça doit être. dina mën a ndax dina yomb ñu def ko. waaw ndax dina ndax dina ndax dina yomb ci contexte bu nga xamante ne bon dégg nañ Ousmane Sonko mu ne dinaa wujji wala du ma wujji et consort euh, c'est son droit de dire que du ma wujji wala du ma ma wujji mais en tout état de en tout état de cause li nga xamante ne moom la procédure bi tëral le juge à les moyens juge bi mm-hmm. am na moyen de par la loi mm-hmm. pour ki nga xamante moom la ñu war a juger mu teew mu bëgg a ñëw ñëw mu bañ a ñëw également am na les moyens pousse ko pour que mu ñëw même bu fekkee ne par la contrainte mm. tey boo jëlee l' article deux cent trente huit bu code de procédure pénale daf ne bu ñu ñëwee war a def li nga xamante ne moom mooy audience d' bi la veille bu ñu nee suba la ki nga xamante ne nekkul prison wala dañ ko joxoon liberté provisoire wala mosuñu ko détenir comme le cas de Ousmane Sonko. Mm. dafa am obligation la veille mu ñëw ci greffe bi nga xamante ne moom mooy chambre criminelle présenté wu wane ne mu ngi fi et que suba dina ñëw euh, participer à à à l'audience su fekkee ni ñëwul président de la chambre criminelle dafay exécuter lu ñuy wax ordonnance de prise de corps maanaam day joxe kayit ñi nga xaman ñooy takk der yi ñu dem jël ko yóbbu ko kasu à partir de la prison lañ koy génnee le lendemain pour ñëw. def def def audience d' identification bi. Mm-hmm. article deux cent trente neuf bu code de procédure yokk ci ne. Mm-hmm. même tey jii bu fekkee ni waa ji dafa am dafa am xel ñaar que ni bon est ce que waa ji dina ñëw wala est ce que du ñëw pour que lépp lu nga xamante ne ci procès bi war na ci am mu déroulé wu normalement am na possibilité tey moom si boppam mu def ordonnance de prise de corps ñu jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy prison. le jour procès bi ñu jël ko foofu daal di koy indi donc juste pour diir que ki nga xamante ne moom mooy le président de la chambre criminelle am na ay moyens yu nga xamante ne dans tous les cas nit ki nga xamante ne dañ ko war a juger mu ñëwul boppam. mu hmm. ñëw mu ñëwul boppam également am na ay moyens yu nga xamante ne mën na koo exécuter pour que mu ñëw. c'est exactement la même chose ce qui s'était passé lorsque ñu doon wax ne Ousmane Sonko dañ ko war a au niveau euh, du doyen des juges. Hmm. ñu ne woon dina dem wala du à l'époque on avait dit que le juge d'instruction am na ay moyens yu nga xamante ne mën na ko contraindre de gré ou de force. Mm. parce que bu ne ñëwul amoon na li nga xamante moom moo nekkoon mandat d'amener bu nga xam da koy jox takk der ñu dem jël ko daal di koy indi donc fële mandat d'amener la woon fii am na li ñuy woowee ordonnance de prise de corps bu nga xamante ne le président de la chambre criminelle mën na ko exécuter pour contraindre ki nga xamante moom la ñu war a juger que mu ñëw ko conformément à la loi. mais ci prise de corps muy dem fanaani kaso di fa dem ci tribunal pour àtte. non xam nga prise de corps am na moment bu nga xamante ne dafa obligatoire si euh, na laa koy wax sax toute procédure bu nga xamante ne criminelle la. jusqu'en 2014 képp ku nga xamante ne dañ la waroon a pour un crime pour une infraction bu nga xam dañ ko qualifier crime. le viol c'est une infraction qui est qualifiée crime depuis 2020 mm-hmm. ñëpp ñi nga xamante ne dañ doon war a juger pour une infraction qualifiée crime ordonnance de prise de corps boobu juge bi da ko doon jël te dañ ko doon exécuter ça veut dire que même nit ki bu fekkoon dafa amoon liberté provisoire dañ koy jël yóbbu ko prison à de la prison la gendarmerie di xëy suba di ko jëli ji di ko indi ñu koy jugé bu ñu paree ñu delloo ko même bu ñu ko bàyyee dañ koy delloowaat prison mu préparer ay bagages am def levée de corps mu doog a génn doog a dem mm-hmm. mais depuis 2014 ordonnance de prise de corps ba pour ñu exécuter ko pour ne dafa nekkoon ko détenir nekkul lu obligatoire. Mm. maintenant comme ni ma ko waxee. article deux cent trente ak article deux cent trente neuf dafa am ay obligations yu nga xamante ne da koo teg ki nga xamante ne il n'a jamais été détenu dans le cadre de la procédure wala mayoon nañ ko liberté provisoire te exécuté ñu exécuté wu ñu ordonnance de prise de corps bi. Mm. am na lu nga xamante ne daf koo war a sàmmanteeg moom muy la veille mu ñëw teew mais bu fekkee ni teewul. automatiquement ki nga xamante ne moom mooy juge bi mën na exécuter ordonnance de plusieurs alors euh, Daouda euh, cette la mu tàmbalee ba léegi boobu ba léegi chaque fois étape buñ ci toll gis nañ ni def nga ci benn jàngat xool yoon naka la ci war a taxawee et tout euh, nii ñu ko yóbbee ni ci chambre criminelle ndax jàpp nga ni te prévisible ou pas naam sax juge d'instruction bi moom mooy xool ndax procès dafa war a am wala amul suffisamment d'éléments pour ne nulal dossier bi waaw man personnellement su fekkee damay wax rek sama aqulaay taala à euh, un moment donné euh, bi ma gisee juge d'instruction bi muy doyen des juges di instruire benn moment bi sama xel demoon na ni noonu yee lañ jëm. mooy ban ban ban étape mooy instant bi nga xamante ne auditionné na Ousmane Sonko après mu def confrontation après mu dem liste bi nga xamante ne Ousmane Sonko joxe woon na ko ak ses avocats procureur bañoon ni kenn bu ñu leen bu ñu leen déglu mu commencé di leen déglu. ñooñu ñëpp dañu dañ nekk ñu nga xamante ne pratiquement seen i audition dafa déchargé muy docteur Alfousseyni Gaye muy euh, euh, MC Niass muy le capitaine Touré voilà MC Niass daal di dem joxe ay audio hmm. ñu dem audio yooyu xam nga daal di convoqué waat Adji Sarr Adji ñëw confirmer que ni audio yooyu également ce sont des audios authentiques foofu noonu man personnellement hmm. je me disais que dañuy dem ci dañuy dañuy dem ci non-lieu maanaam mu jeex donc bi ma ñëwee gis par exemple ordonnance de bi ah dama ne wax dëgg fa yàlla mënuma ci def benn analyse tant que gisuma li nga xamante moom mooy ordonnance de renvoi parce que ordonnance de renvoi ba moom moo lay renseigné. ci lan la sur lan mooy les éléments yu nga xamante ne le juge d'instruction ci loolu la basé wu pour renvoyer devant la juridiction de jugement parce que je rappelle que juge d'instruction bi li nga xamante ne obligation la mooy dafa war a instruire à charge et à décharge. et que bu demee ba nga xamante ne mi ngi renvoyer une personne devant la juridiction de jugement c'est parce que. am na ay charge suffisante donc te ci ordonnance de renvoi bi dafa war war a wax que ni lii ak lii ak lii ak lii moom mooy li nga xamante ne dama jàpp ne ay charge suffisante la de nature à ce que ma renvoyé ko devant la juridiction de jugement loolu nag man personnellement fii ma teew ne mënuma ko wax parce que liiraguma ordonnance de renvoi mm. bu ma liiroon ordonnance de renvoi ñoo ne ah le juge c'est basé sur ça c'est basé sur ça sur ba c'est sur pour def pour def mais ci sama xel mu gàtt wax dëgg yàlla ni ma gis woon par exemple affaire di déroulé wu. ak ñi ma gis ñu ñu auditionné woon sama xel mu gàtt ne woon na sinon yee la ñu la ñu jëm. mais également nag bu ñu amee ordinateur renvoi bi je pense que ci la ñu mën a xam exactement juge bi lan la retenir ak lan moo tax mu renvoyé bi devant la justice. Mm-hmm. mais est-ce que pour attitude aussi acteurs yi parce que boo xoolee ci confrontation bi presque il y avait pas de réponse yoo xamante ni Sonko indi woon na ko. parce que il avait préféré garder le silence il avait même expliqué pourquoi. waaw parce que boo gisee boo gisee même euh, euh, réquisitoire définitif bu procureur bi parce que juge d'instruction bi mu paree liggéey avant muy clôturer. dafa amoon obligation de par les dispositions du code de procédure pénale jël dossier bi yóbbuwaat ko ci procureur de la république pour que moom mu addu ci avant muy def clôture loolu mooy réquisitoire définitif parce que li ko njëkkoon a saisir réquisitoire introductif la woon bu demee bay clôturer également réquisitoire définitif bu procureur moom mooy li nga xamante moom mooy li procureur di mujjee joxe ci réquisitoire définitif boobu procureur bi ñaari la moom dafa demandé woon ñu renvoyer ko devant la juridiction de jugement li nga xamante ne moom la Oumar Maham def en dernier ressort mais foofu procureur bi li mu jàppoon mooy la fait que Sonko nanguwul répondre par ci yenn questions yi dafay accréditer la thèse selon laquelle aji Sarr lu mu wax nekk na lu nga xamante ne euh, lu lu lu lu mën a nekk dëgg la mu ne waat la fait que Ousmane Sonko accepté wul par exemple soumettre wu ci ay test ADN nekk na lu nga xamante ne day accrédité la thèse selon laquelle Adji Sarr li mu wax li mu li mu wax dëgg la muy benn ñaari argument yu nga xamante ne procureur joxoon na ko ñetteelu argument bi procureur bi joxe woon moo di lépp li nga xamante ne ay audio yu MC Niass joxe ay témoignages yu nga xamante ne euh, euh, lu tëddee capitaine Touré jox wax na ko ak audition bu euh, le ministre la nu ministre bi ñu tuddoon ci ci ci ci ci affaire bi Mamour ah. Diallo yooyu yëpp dafa nekk lu nga xamante ne ça n'intéresse pas li nga xamante ne moom moo taxoon ñu inculper Ousmane Sonko parce que mm-hmm. Ousmane Sonko a été inculpé sous la base de l'article 320 bi nga xamante ne moom mooy prévoir le viol moom mooy définir le viol et foofu noonu ni ñu ko définir le viol dafa nekk lu nga xamante mooy conjonction sexuelle bu am entre ñaari nit et que bañ koy def mu nekk violence menace contrainte wala surprise procureur dafa jàpp ni nag témoignage yëpp nga xamante ne dañ ko recueillir muy MC Niass muy euh, euh, Mamour Diallo muy loolu yëpp nekkul lu nga xamante ne dafay intéressé véritablement li nga xamante moom moo taxoon ñu topp ki nga xamante mooy Ousmane Sonko. loolu mooy li nga xamante moom la réquisitoire définitif bu que ci loolu la Omar Maham sukkandiku pour renvoyer ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko devant la juridiction de jugement. il faut véritablement ñu lire ordonnance de renvoi bi pour mën a xam loolu. Mm, waaw mais xam nga daaw da ci mbir mi dafa ñaari camp la bon kii nii ci lii lañ may àtte kële moom tamit ne ci lële ngeen di statuer parce que yi ngay yow par exemple yi nga wax nii nii yàq jàpp nga ni procureur basé wu ci. Mm-hmm. yooyu sa nu mu tudd ci lii Ousmane Sonko avancé ni complot loolu. moom mm-hmm. moo maanaam moo aajo parti boobu. est-ce que ñaari dossier yu ñu war a boole la. Mm-hmm. wala. Euh, benn dossier la boo xamee ni. waaw waaw xam nga xam nga ci sunu procédure pénale dañ ne euh, le juge d'instruction il est saisi in rem le juge d'instruction mënul saisir boppam le juge d'instruction li koy saisir c'est un un réquisitoire introductif. procureur moo koy jël. voilà et procureur du ñëw rek ne la jëbbal naa la dossier bi. da lay jox boo benn document bu ñu tudd réquisitoire introductif réquisitoire introductif daf naan. yow Oumar Maham Diallo doyen des dama bëgg nga toppal ma daaw Daouda Mine mi xam nga sur fee yi fee yi fee damaa bëgg nga inculpel ma ko pour viol nga xamante ne c'est prévu par l'article 320 du code pénal xam nga dama bëgg nga placel ma ko su mandat de dépôt wala dama bëgg nga placel ma ko sous contrôle judiciaire loolu mooy document bi nga xam ne mooy saisir le juge d'instruction réquisitoire introductif juge d'instruction commencé ubbi liggéeyam et boo jëlee code pénal lépp lu nga xamante ne dañ ko prévoir comme infraction dañ koo définir buñ ne la vol code pénal da ko définir d'abord avant mu ciy teg benn benn benn condamnation vol dañ naan la c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui escroquerie dañ lay wax ni ay manœuvre frauduleuse usage de faux noms xam nga pour soutirer nit xaalis viol dañ lay wax ni euh, c'est tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit par violence menace contrainte ou surprise donc juge d'instruction bu jëlee dossier sur la base d'un réquisitoire introductif li muy xool par rapport ak infraction bi nga xam moom muy visé est-ce que les éléments constitutifs de l'infraction réuniru na donc lépp lu nga xamante ne daf koy def dans le cadre de son enquête c'est pour xam ñaari benn ndax conjonction sexuelle am na entre ñaar ñooñu parce que mooy premier élément d'un viol su fekkee loolu am na ba pare mu xool ndax effectivement ba muy am am na menace am na violence am na contrainte wala am na surprise maintenant su fekkee ni juge d'instruction bi dafa dem di instruire benn dossier su la base d'un viol mu dem ba ci biir mu am yeneen élément yu nga xamante ne daf ko recueillir bu nga xamante ne soit supposons par exemple muy accrité la thèse d'un complot et consort bu nga xamante peut ay infractions yu nga xamante ne prévues par le code pénal dafay delluwaat ci procureur ñoo ne ko ah man de ci biir sama sama instruction découvrir naa lii découvrir naa lay découvrir naa su bëggee mu poursuivre ci loolu da jox li ñuy woowee résultat supplétif ñoo ne ko sur la base li nga découvrir bëgg naa nga ubbi ci waat beneen enquête contre telle personne telle personne telle personne ba nga xamante ne def nañ tel acte tel acte bu nga xamante ne c'est prévu par l'article nangam ak nangam du code pénal et c'est réprimé par tel tel tel infra pour pour c'est réprimé par le code pénal léegi nag bu defee à part de sa moment la le juge d'instruction mën na jël loolu ajouté ko ci li nga xamante moom lay instruire def la jonction des deux dossiers ñii mu topp leen peut-être pour viol ñële mu topp leen pour complot après continuer def liggéey mais bu fekkee ne juge d'instruction bi procureur defu ko loolu amul possibilité jël loolu moom ci boppam daal di koy jël dugal ko boppam ci dossier bi daal di koy continuer def ko mënu ko il peut pas parce que encore une fois le juge d'instruction il est saisi moom moo mën a waaw boo xoolee par exemple ci code bi daf ne dañu war a organiser chambre criminelle tous les quatre mois mais dans les faits fi mu toll boo demee tribunal bu bu bu Dakar c'est pas tous les quatre mois depuis 2016 les chambres criminelles qui se tiennent régulièrement chaque mois dafay am dafa am ñaari chambres criminelles yi nga xam dafa am Dakar bu ci nekk dafay statuer tous les quinze jours donc chaque mois dina am ko moins ñaari ñaar ñaari ñaari ñaari jugement yu nga xamante ne yu chambre criminelle di def fi mu toll nii ma lay wax ne. Mhm. amoon na audience su chambre criminelle bu nga xam ne mu doon am Dakar ne. kon mën nañu koo juger du jour au lendemain. mën nañu koo juger du jour au lendemain obligation bu ñu am rek mooy bu demee ba retenir li nga xamante mooy datu procès bi. Mhm. dañ koy envoyé kayit muy citation à comparaître pour wax ko ne par jour sangam heure sangam war nga ñëw parce que dañ la war a dañ la war a jugé à partir de ce moment ay avocats. mais est-ce que dossier bi peut-être la dernière question pour moi c'est dossier bi est-ce que tournure bi mu am nii. règlement bi sa sur justice que da la war mën a doon. non parce que fi toll nii euh, fi toll nii. bu ñu defee ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement bon pour man daf amul je pense loolu nekk sax ci texte lu ñu defee ordonnance de renvoi y'a la chambre criminelle moom moo mën a jeexal mbir mi mooy benn suñu demee parce que jusqu'à présent ñu ngi doon wax ay charges juge d'instruction charge mais fële ay preuves la ñuy wax cest à que tey bu ñu demee ci chambre criminelle on cherche des preuves est-ce que on a la preuve que ni Ousmane Sonko dafa violé Adji Sarr dañu war a indi preuve ya suñu indee preuve ya xam nga ñu condamné ko suñu indiwul preuve ya ñu acquitté ko su fekkee ne sax dafa am doute bu nga xamante ne dafa am mën na am violé na wala mën na am violé wul bu boobaa dafay profité ki nga xamante ne moom mooy moom moom mooy moom mooy làkk ga mooy Ousmane Sonko donc juridiction de jugement dafa am obligation mhm. bala mu condamné mu am la preuve que ni liñ koy jiiñ da ko da ko da koy def donc ce qui fait pour man chambre criminelle mooy ki nga xamante ne moom mën a jeexal dossier Adji Sarr Ousmane Sonko comme renvoyé nañ ko devant la juridiction de jugement ba pare. Mm-hmm. loolu rek euh, Daara dama bëggoon ñu taxaw fenn euh, par exemple est-ce que itam logique pour logique sànq yaa ngi wax ne euh, sa xel demoon na ci lu mel ni non-lieu ñenn ci ñoo xamante ni njort nañ ne laal nañ ci wàll wi ñoom ñëpp dañu décharger ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko naam justice dafa war a tëddee njaaxaanaay ci lépp lu mu mën a doon ci aw dëkk te boobaak léegi dossier bi ñu mel. ñuy wax mbirum complot mbirum politique yeneen yi ñu xeetoo itam jàppoo ne yoon en même temps war nañ war mën a sukkandiku ci intéret commun ci jamono yi nga xam ne dossier bi yëngaloon na fi ba ñuy wax ay euh, plus de dix morts. yoo xamante ni génn nañ ci àddina. waaw je suis d'accord je suis d'accord loolu yëpp mën na am mais tey jii lépp lu nga xamante ne. Euh, jàpp na ni par exemple waroon na am ci dossier bi te amagul. Mm-hmm. chambre criminelle am na possibilité def ko. Mm-hmm. tey jii boo xoolee les du code de procédure pénale. le président de la chambre criminelle dossier bi bu ñëwee mu jàpp na par exemple bi na mu déroulé woo am na lu nga xamante ni daf ci sooxe wala am na lu nga xam war nañ ko ciy ajouté mm-hmm. moom si boppam am na possibilité daal di reprendre euh, instruction bi wala une partie de l' instruction pour complément d'accord bu boobaa moom si boppam mun na ko defal boppam wala kenn ku nga xamante ne ci ay euh, nu mu ñaar ñi nga xamante ay assesseur am lañ mën na ko adjoindre pour que mu pour que mu def lépp lu nga xamante ne defuñu ko woon ca instruction bi te mu jàpp ne dafa nekk lu nga xam ne lu ñu war def pour la manifestation de la vérité la chambre criminelle am na possibilité def ko donc juste pour dire que lépp lu nga xamante ñu ngi wax ne peut-être dafa sooxee wala lu ñu war a jooyante la mhm. jusqu'à présent c'est mais c'est devant la chambre criminelle c'est possible que ñu def ko mhm. et que ñu décider en dernier ressort li nga xamante moom moo war am conforme à la loi d'accord merci beaucoup merci Alaaji Daouda ci jàngat bi leer na merci beaucoup léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj muy sunu gan ñu dalal ko egsi na